waa li ñu mën a jàpp ci wàllu assainissement mooy dañu am yaakaar li ñu am yaakaar mooy euh, suñu kilifa muy ministre de l'intérieur ñëw na fi ànd ak ànd nañu ko moom ci koñ yi nga xam ne yëpp fa ndox mi gënoon taa mais li ñu soxal ci visite bi mooy euh, pexe yi ñuy jël si wàllu ouvrage pour nag léegi euh, koñ yooyu waxuma la màggal gi waxuma la kii nawet bi waaye sax nawet yi jëm ba fukki at ak ñaar fukki at wala téeméeri at sax du am problème yooyu moom la tax ma àndoon ak ONAS mu jiitu ñu xool li nga xam ne gisuñu ko woon keroog mooy ouvrage yi ñu réalisé foofu bañ fa demee euh, xel mën naa dal ni ñuy gisee ñuy liggéey liggéey bi euh, yaakaar naa ne euh, tegu nañ ci yoon wu baax te ouvrage yooyu mën na pare waaye dañoo jub màggal màggal suñ diggante ak màggal matul matul matul fukki fan ak juróom dogal bi ñu fa jël bi ma xoolee dama leen ne boo leen bëggee xaar ba lépp pare ba yem ñu soog nag mën a jaar ci tali bi bu boobaa màggal gi ñëw du ñu arrangé loolu baaxul ci ñun. te li ma leen ñaan may lañ ma ko mooy ñu fexe ba déversoir boobu fa ne ñu tekk ci digg tali bi mu daal di mën a jël ndox mi yóbbu ko ci ouvrage bi loolu mën naa nekk nañ ñoom balay màggal loolu nag nekk la loo xam ne man sama xool si sedd na ci te loolu visite bi tey may nañu ko kon boog ndox mu fa ne su màggal jotee doo leen ko fa gis ndax liggéey bi bi ñu bëgg a def dina commencé suba. te ñaan na leen ko dinañ créer fo xamné ndox moy fa ne yëpp te tali bobu moo jëm bori ko señ parce que dafa bari auto yi fay jaar donc dinañ fexé ba ndox mi dem ci euh, ouvrage bobu euh, même bu fekkee ne parewul mais dina mëna déjà jël jël ndox lool rek nek na satisfaction lo xamné ne bu doon visite bi rek loolu euh, yam na fa mané man sant na yàlla. beneen bi moy dem nañu ci euh tokor bi tokor bi moo jëm belel tali bu ama amam solo la. loolu bu fattee ci màggal gi loolu dina doy waar lool embouteillage yi kenn dootul xam fay jaar waaye alhamdulilah waa Touba sa kanam yi nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom gis nañ def nañ fa benn tuyau boo xam ne dañ koy daal di raccorder ci euh, déversoir bi bii gën a jege même caniveau gën a jege. loolu aussi sant yàlla parce que jëloon naa ay mesures pour woo bi nga xam ne mooy moom la ñuy liggéeyal ci dans le cadre du plan Orsec pour ñu def fa benn bassin wala ñu def fa benn diguette bi nga xam ne dañuy contenir ndox mi di ko pomper jëloon na ay mesures. waaye ñoom ci boppam nee nañ ma loolu jaru ko dëgg yàlla ñoom taxaw nañu defar nañ tuyau bi ba pare xanaa defar euh, fi nga xam ne fa la ndox miy dugg rek pour wal daal di jaar ci tuyau bi dem loolu sant sant yàlla la dugal ñi seen loxo parce que tam ñooñu ñëpp dañuy collaborer ak ñoom association yooyu yëpp dañuy ñëw di ñu jàppale ci liggéey bi loolu daal nekk looloo xam ne lu am solo la bi ci des mooy dinañ dem station Shell foofu dafa nekk ci xolu dëkk bi daal di jubal ca nekk direct ca jumaa ja foofu euh, ni fa mel ndox mi daan mel jéggi na dayoo Euh, solution bi nak bima len proposer. won bima bi réunion Touba si euh, invitation maire moy solution hydrocureur bi du solution Manam ma jël auto diko euh, ndox mi diko manque diko duggal ci ay camion diko yobbu di tour yi loolu du woon solution waxon na len ne dañuy jël ndox mi yobbu ko ci rigole bi gëna jégé jege mu fay dugg di dem alhamdulilah ñom tam yalla euh biñu xolé nangul nañ ma étudier ko xam ne loolu mën naa ne loolu Ageroute mu ngi koy réaliser fi mu nekk nii donc dañuy jël ndox mi foofu dootuñ ko pompé ti parce que boo pompé tey mu taw suba nooy def mënuñu ñu see dëkk te mu nekk ci xolu dëkk bi jubal ca jumaa ja léegi dañuy jël ndox moomu dal di ko utile benn rigole boo xam ne dañ ko fay jaarale moom lay topp ba daal di wal dem te kenn du ko pompé ndax pompé aussi di ay camion c'est un jeex da ngay yàq sa xaalis yàq boo tawee pompé léegi mu tawaat suba sa nawet la ñu ne te màggalu déwén itam incha allah yàlla fi yàlla bàyyi ak jàmm ci digg nawet lay ne boobu septembre lay ne donc solution booy jël na tekk solution boo xam ni boo ko jëlee ba pare doo fa dellu si maanaam day régler problème bi définitivement loolu ñi may liggéeyal vraiment am nañ xel moomu te yaakaar ne loolu lépp ñu ko toppee euh, màggal gi euh, ndox mu taami duñu sonal oto yi ci bëri dañ am fu ñu jaar ndoxum naan bi itam ak ndox mi kili nit ñi di jëfandikoo dina am ndax forage yi yokku na tuyau yi na fa mu war a jaar ba àgg ci nit ñi yokku na donc bu ñu yokkoo ñaar yooyu yokk ndox mi ba pare fa muy jaar ñu awale ko yoon mooy réseau ñuy wax réseau bi yaakaar naa ne loolu bu amee màggalu ren gi y mooy de problème ba nga xam ne fu dëgg yàlla deeñ li ñu am day ci wàllu ndox muy ndox ñaari gu wàllu ndox yëpp ndox mu taw eau de yi comme ndox mi nit ñi jëfandikoo yaakaar naa ne loolu du am problème te loolu dafa am solo ci ci màggal fu nit ñi jaar ba doxi seen i soxla fu oto jaar ak ndox mu nit ñi jëfandikoo ci jàpp ak julleeg sangoog togg loolu loolu yaakaar naa ne du ma ne moo yor màggal gi de waaye lu ci am solo la de loolu nag moo waral sama tànk yi ginnaaw ba ñu defee CDD def CRD def réunion national ñaari fan lañ ci teg ma ne foofu ma ñëw xool loolu ñu topp ko euh, lii sax ñëw bii daf ñu mbay sax leneen déjà camion citerne yi ni ñu ko daan organisé fexe ñu ba léegi sax taxawal nañ benn système bi nga xam ne préfet sous préfet ñoo koy gérer ndaxte moom moo daan mottali ndox mii nga xam ne mooy jóge ci robinet yi waaye eh, liñ daan chauffeur si sama suñu mbokk yooyu eh, seen liggéey dafa xawoon tax a suuf organiser nañ ko ba nga xam ne dañuy recruter ñoo xam ne ñoom la ñuy àndal chauffeur bu nekk day am ko àndal te loolu maire moo leen di recruter ci mairie bi ut ndàmpaay bu ñu leen jox jox leen ko ñu xam leen dajale leen ku ci nekk ñu boole ko camion camion bu ñu jël ñun xam nañ kon dañ xam fan la jëm tax àgg nag àggu fa lu tax àgg na fa lu tax àggu fa dara dootuñu réer am na yaakaar ne parce que daanu jaawuñu woon ñàkk ay kamion mais dañ daan àggu daawul ñu àgg fuñ leen sante wala ñu def loo xam ne santew ñu leen ko loolu nag reen jeex na kon boog vraiment loolu visite bi may nañu loolu lépp tey kon alhamdulilah rabbi alamin maa ngi leen di gërëm bu baax ñi ma àndal gërëm directeur général de l'OFOR bi nga xam ne mu ngi ñuy jàppale ànd ak ñun ak service technique yëpp ONAS préfet sous préfet ñoom mobiliser nañu pour que non seulement inondation yii ñu xeex ko te plan ORSEC bi fii ñu ngi ciy liggéey waaye sax euh, ci wàllu màggal gi tam ginnaaw ñaar yi dañu roofonte ren ñu fexé ba am ci réussite ak satisfaction ba nga xamné euh gouvernement bi ñu fi tek ah dinañ def lu mu ñu santé parce que moy taxaw ci wettu population yi waye askanu itam dinañ yëg nañ ñu jóge fi te amal nañ ñëriñ parce que ñu ngi dox seen ay soxla wa salam